Non, qui... quand c'est le ministre qui saisit l'Assemblée, c'est l'exécutif qui saisit l'Assemblée. Mais quand même, attention. Euh, le ministre représente le gouvernement Oui, la chancellerie, comme on l'a euh, autrement dit. C'est l'exécutif. C'est pas le judiciaire. Oui, Charles, Attention, Charles. Euh, oui, dama bëgg nii ginnaaw réew mi la ñu xam. man naa bëgg bu ñu fi jógee Sénégal yi xam procédure. waaw levée immunité parlementaire. nit ñi xam ko. Mhm. parce que bu ñu ko xamee su ci rëq-rëq nekkee lañ gis. Mhm. xamuñu ko. bu ci rëq-rëq nekkee duñu mën a àtte. Mhm. man ñëw ma fi pour jël pour par Sénégal yi ñu seet la bëgg ñu xam. mu leer pour le minutes parlementaire yan étape la ak ñana ko séq bu ñu xamee nag bu fekkente ne ëllëg euh, Serigne Ousseynou gis na rëq-rëq. Mhm. su ko waxee Sénégal yi dañ ak ah, ñun kat xamoon nañu état bi lii lañ waroon a jaar waaye jaaruñ ci kon rëq-rëq xam na ñu door a mën a contestation doon je reviens je le répète xam nga ñun man ak yow ak ñun ñëpp ah, ki ñu bari ci Sénégalais yi bi ñu yónnee bi président Ousmane Sonko ko mais daf ñu naqar yi. mais mais foofu it nga baal ma damay laaj foog foog ma laaj est-ce que du flagrant délit lañ doon viser moo tax. bu ne su ko jàpp flagrant délit ñu fekk waaj. mais ku la ni ci guddi la xew. ci guddi gi ko te plainte. ànd ak flagrant délit. Mm. Mm. ah lu ah, Bamba Bamba dafa wax lu am sax na non criminalisation dugg na. sëñ der sëñ der dama bëgg ñu. non damay laaj rek. xam nga ñun dañoo woot dañoo convoqué dañoo jox convocation gendarmerie section de recherche président Ousmane ko jox. moom mu ne waruñu maa convoqué waaye nag nga xam ne nag am na Sénégalais bu participer. kon ñi ñu war a enquête député ji la bokk. Mm-hmm. or ñun dawul député bi gendarme ma wax moom te léegi wuñu immunité parlementaire procureur li war a def mooy demande la révision immunité parlementaire suñu noppee ñu ñu continuer seen enquête. surtout ci loolu nag li li li li yoon pare li yoon Charles c'est pas le ministre de la justice qui saisit le président de l'Assemblée nationale ministre de la justice saisit nam tudd transmet au président de l'Assemblée nationale une demande formulée par le procureur de la République et par le procureur général parce que le, mais parce que juge ne le peut pas mm-hmm. non non non xam non yow yaa procureur loolu laa il faut que passe par l'exécutif qui saisit amul amul juge d'instruction xam nga Mm-hmm. le parquet le procureur de la république et le procureur ñooñu la concerné. Mm-hmm. d'accord ñooñu ñooy bind seen lettre ginnaaw nag. Mm-hmm. avec le régime de système séparation des pouvoirs procureur mënut wax ak président assemblée nationale ñu jox lettre bi ministre de la justice mu transmettre. c'est comme ça que ça se fait. c'est l'exécutif loolu la Charles wax Papis. c'est l'exécutif ah, bëggoon na ci non man d'abord euh, c'est par rapport ak euh, li ñuy wax ay cuune la ñoo cuune wu ñu c'est important ñu yi parce que histoire yu mel nii bu amee da ngay xool camp yi concerné yi ñoom ñooy wax ak la presse et c'est pas évident que moo am ay neutralité am yu si infi lu si am c'est possible mais pour rappeler au Sénégalais que dafa am ay post dans un pays qui s'appelle le Sénégal am na ay post yoo xamante ne ay post je veux dire ay postes de responsabilité du n'importe qui moo fay nekk du n'importe qui donc amul affaire cuune bu fi am affaire cuune du fi mën a am tout ce qui se passera parce qu'il y a le support des textes tu dira interprétation mais interprétation am na lu ko lu ko gën a lu ko gën a taxaw loo xamante ne moom la ñu bind noir sur blanc maanaam atte bu jotee mun nañu mun nañu atte je veux dire par là boo commencé par euh, section de recherche euh, gendarme bi obligation de réserve boo demaatee boo xoolee chaîne bi ñuy composé yëpp obligation de réserve donc qui parle à <laughs> à la place c'est la presse c'est les politiques c'est les camps concernés donc dama bëgg mu leer si bopp nit ñi aujourd'hui que ñu def procédure bu baax ou bu bon ça c'est aux gens d'en mais la compétence elle est là aussi bien le commandant de la gendarmerie foofu ba ci juge d'instruction ils ont tous les compétences pour gérer équitablement ce dossier maintenant ni ñu koy ni ñu koy juger ni ñu koy traiter mm-hmm. est-ce qu'ils seront impartiaux ou pas mm-hmm. ça c'est la grande question mais la compétence je le répète au-delà même de la justice yaa ngi koy rappeler ça et je partage cet avis et ma dama ko le Sénégal est un pays développé en matière de texte législation muy droit muy maintenant boo ñëwaatee si wàllu interprétation bi tout en partant de l'exemple de lii bu ñu wax ne solol euh, mal solol bu weex booy ñëw euh, euh, jàkkaarloo mais après der da lay wax mais bu tawul Charles ne non bu xiinee bu ko sol bu non ba ngelaw aussi bu ko bu bu weex et l'interprétation revient on ne peut pas nous changer le, cursus ou la trajectoire du droit le droit est ainsi dans tous les pays du monde li ci am je le répète il y a des articles qui sont consacrés qui sont là préétablis et qui ne sont pas prévus pour Charles mm-hmm. et qui sont là interpelle donc loolu du problème bi donc pour les Sénégalais qui ne sont pas dans cette affaire qui sont des Sénégalais qui attendent la vérité nañu comprendre ne incompétence moo am wala bañ jubal mais yoon baa ngi fi waaw man man en fait lu ma ci bëggoon lu ma non non mais non non mais li li <laughs> moom tam moom moo aaye non non moom laa jox non moom euh, je suis pas trop à 100 pour cent d'accord ak parce pour man pour man même bu amee neutralité c'est sur les actes que nit yi di poser mm-hmm. ah ñoom acte ñu waxee mm-hmm. te bu fekkee ne acte yi ñuy poser dafa woro ak procédure yi peut-être que mooy tax nit yi di am ay ah. jiixi jax man pour man bu ñu nekkee fii euh, ci dëkk yu mel ni ay Sénégal wax fa dëgg yàlla si njorto rek boo basé woo ci yi fi doon xew les gens ont parfaitement le droit ah bu yu mel ni amee ñu ñu contester ko ñu parce que en réalité l'histoire li mu ñu li mu ñu li mu ñu wan mooy à chaque fois que état bëgg na diligenter benn benn dossier mu gaaw mu nekk seen faveur dafay gaaw loolu c'est un fait maintenant la différence entre entre bu doon état mooy jiiñ nit ne dafa jël luubal alalu askan bi wala dafa détourné xaalis wala li ci yokk mooy que sénégalais moom moo porté plainte sénégalais te ni ñu war a respecté Ousmane Sonko noonu la ñu benn sénégalais que mu wax dëgg que mu bañ a wax dëgg donc pour man aussi loolu daf ci am solo le fait mu am benn mu nekk benn benn plainte boo xam ne nit moo ko moo ko moo ko moo ko teg ci ndoddu keneen moom moo ci indi ñun ñëpp suñu wax mais bu ñu basé woo rek ci ay mbir yu ñuy jiiñ homme wax fa dëgg yàlla ci histoire bu Sénégal boo àndeek nguur ah affaire yi du mujj fenn boo àndul ak nguur problème yi gën a bëri loolu moom ñu diligenté procédure yi mu gaaw loolu moom mooy lekk te loolu mooy tax sénégalais à chaque fois que benn problème bu mel nii am ñu am ci aji jaaxa parce que histoire bi dafa wane ni y a toujours eu des des yoo xam ne fa dëgg yàlla dëgg la yàlla bëgg. dañ di ko subir wala lu mel ni ngay wax nii. non non non dama ne lu fekk nit ñi am ay jiixi jaaxa mhm. loolu mën nañu basé wu ci lu leer pour que ni nit ñi am jiixi jaaxa parce que pour man cette pression là elle est même nécessaire maintenant li ci yokk moom mooy moom laa lay wax nii quel que soit loo mën a boo jël xeer di ko sànni Adji Sarr wala nga koy sànni Ousmane Sonko ñëpp ñoom ñëpp c'est des sénégalais te da nga leen war a respecter. Allez Bamba. waaw euh, fii Bouba terminé foofu lay tàmbale dafa def benn distinction bu am solo. Mm. cas yi ñu fi soulevé. Mm-hmm. c'était politique dès le départ da sentir ni c'est politique. Mhm. muy ay Khalifa Sall. di nga yokk sa ndax masque bi dégg man ne muy ay ñoom xalifa Sall ak ñoom ñi waa CREI yi doon toppat. ñëpp dafa volonté politique. de poursuite. mais attention. Mhm. fii buñ ko fàttee. et c'est ma manière pour moi de répondre à Malal tout à l'heure wooy li ñu seetlu léegi mooy dañuy banaliser la bi mais dafa war a banal. député nit la bu ay nit tànn mais entre chaque jour député violé code de la route dañ koy dóor dañ koy dóor kii wala. Euh, nu mu tuddati euh, euh, contravention bi bi dañ koy dóor wala wala day fay si wala day fay dañ koy daggal bindal ko. dañ koy fay wala foofu tam dañu war a convoquer immunité. lu baax la ci réew parce que pouvoir yi dafa war a am député bi dem taxaw ci pencum askan wi di fa toogal askan wi di am ay kàddu yu mu fa yëkkati di am ay position yu mu jël bu fekkee ne protégé woo ko mais kon république amatul mais nag dafa war a banal qu'on poursuive un député dans une démocratie dafa war a banal qu'on puisse poursuivre même si par ailleurs ñeneen ñi ministres yi amuñu immunité mais am nañ benn protection tey ministre noo ko dëgg tant que amul autorisation wu président de la république tey suba non démb sama benn kii benn élu bu bokk la république en marche ñu dóor trois ans pour viol dañ ko porté plainte la procédure a pris son temps ñu dóor ko démb trois ans benn je pense même le procureur avait demandé deux ans juge bi ne trois ans pidum seen affaire u viol en réunion rek seen affaire demee noonu bref pour revenir si dossier bi man dama bëgg booy lépp luy wax rek nga andi argument bu ko bu leeral bëgguma ñuy wax ci ay sama xalaat dañu bëgg ñuy wax ci ay fee fee bi mooy gendarmerie woolu na Ousmane Sonko bi nga xamante te dañ ko joxoñ baaraamu tuuma mu ne daw ma ndax man député loolu mooy fee yi à tere télé man ko seetaan ne defe naa si seen benn concurrent moom moo fa nekkoon en direct jour boobu mu ne daw ma li fekk dinduñu sama immunité bu ñu ko dindee dix heures dix heures cinq ma moo ko xool wax ko léegi ñun fee aussi mooy le maître des poursuites le procureur a la République saisir na jël na dossier bi ci gendarmerie jox ko juge d'instruction jël na su euh, la forme d'un réquisitoire introductif jëlaat na xalimam bind jëmale ci ki ko yilif mhm. pour kooku demander à ce que ñu lever immunité parlementaire question bi ñu ne ñu ne ex bi dañ ne citizen euh, maa ngi juum <laughs> sama xarit Facebook la. Citizen tax nga sax man ni laaj ko laa koy wooyee laaj ko sax ma la ko doon wooyee ndax yow. nee na juge d'instruction bi ñu ko bi ñu ko saisiré. de réquisitoire introductif boo xam ne dañ ci viser x. balaa muy def dara dafa war a enquête. yow loolu nga wax loolu mooy sa loolu mooy sa position mooy juge bi mënut a def lenn mënut a déterminer x lu dul à la suite d'une enquête. Mm-hmm. ñu toogee léegi di wax am na sama benn xarit. magistrat qui m'a envoyé euh, ay éléments oui. pour me dire que c'est pas vrai dès lors que juge bi saisir nañ ko il a deux possibilités déterminer x à la fin de son enquête de l'enquête mu va loolu mooy dans peut-être dans le cadre d'une personne normale comme man mhm. nga xamante ne aw ma malaanu kii lay amu da ou bien désigner x tel que le dossier le lui permet moo tax ma ne la question man bi may laaj mooy bu fekkoon ni moom dafa désigner selon le les éléments du dossier mais xanaa war na bu am benn acte de procédure boo xamante ni daf koy delloo procureur de la république pour que procureur de la république war a mën na sukkandiku ci acte boobu pour demander à ce que ñu lever immunité parlementaire loolu mooy question bi waroon laaj sànq est-ce que am na jokkalante boobu diggante lu juge d'instruction wala juge d'instruction moom benn xuusma ñàpp la rek ko procureur ni jàppal Moustapha Diakhaté même si x def rek mun na ok nañ ko jàpp il faut loolu ñu leeral ko. xam nga même xam nga difficulté et puis en une minute. xam nga euh, der der difficulté sujet bi sur un plateau de télévision xam nga mooy lan. oui à moins que kenn ci nekk un un véritable praticien du droit. du droit. man doon ma ko en tout cas. te nee naa la sama début propos jàng droit gën université. Chante Diop wala UGB mën nga faa ro jàng ba am doctorat te doo xam procédure pénale nu sërëx yi ci nekk ak loxati d'ailleurs am na avocat yu ñuy woowee ay procédurier non man gis naa démb sax avocat yooyu nag exactement ay ko daf ci am ay procédure te xam naa kañ ngay wuy ma non xam naa sax kat ngay juñ effectivement dafa dafa nang rek mais am na ko am na xam ne moo ci suuf am nañ ko am nañ koo xam ne nee nañ moo ci suuf. mu ne noonu. Euh, euh, ah, ma balaa muy dem laaj. non la ah, non non dafa dafa ndànk. dama may wax nag. Uh-huh. Moustapha waxee nga dagg ko <laughs> Sall waxee nga dagg ko. <laughs> dëgg la Kële waxee nga dagg ko <laughs> fii ñu ne ay journaliste ñu lay journaliste ba noonu non non a lekk morom. bàyyi rek ma wax bu ma paree nga wax. da nga ne xam nga boo nee. mais jéem a lekk dafa ndànk rek yaa ngi koy déglu leen ko déglu leen boo nee mënees na. Mhm. ak dafa war a ñaari ñaari différent la. surtout dit que le juge d'instruction doit obligatoirement. avant de désigner par une personne mener une euh, enquête ak surtout dit que il peut. Mhm. bokkuñu. donc moo tax ma dafa nag rek. moi n'étant pas. spécialiste leen ko mu daaneel message bi faaw ñu xoolaat leen ko mu daaneel waay message un juriste dama ne ñun li ñu jàpp rek mooy fay yi ñu ci fay nañu mën a yem yow mi nga xamante ne da ngaa bokk ak ki ñu tuumaal bu la neexee nga interpréter fay yi interpréter wu ma ay fay dama gis bu la neexee nga interpréter interprété wu ma ay. non si parce que non non dama nag xaaral wax la déedéet man ci biir gis lu leer. xamul lu leer dama nang rek dama nang rek. dama wax sax xaaral ma xam nga da nga interprété. xam lu tax man li ma def. yow xamal li ngay def yow mais bu xamal li ngay say kaddu la. déedéet yow yaa ne. Hmm. yu mel ni bu amee. gendarmerie. waroon na jël temps. déet waxuma waroon na jël temps tamit waxal ma li na fi enquête yoo xam ne jël nañ temps jël nañ temps trois ba ñu dañuy waxtaan on le laisse poursuivre xam nga man citizen li ñu fi andi ku nekk li ma fi andi du ñëw joxoñ baaraam tuuma wala nangam li ma andi mooy ñëw wax sama xalaat rek j'ai ne gendarmerie waroon nañu enquête pare lu tax procureur de yàqam ci dem jëli dossier bi question la waaw léegi il faut qu'on pose cette question ñu posé waat beneen question question bi mooy enquête elle est contradictoire si la gendarmerie ne peut pas mener une enquête contradictoire du fait du statut du mise en cause ou du fait du statut du présumé waaw bu fekkee ne gendarmerie mënta def enquête bu yemambaay ndax contradictoire mooy dafay yemambaay mais nu ngay xaare mais nu enquête kañ moom mën enquête fi mu toll li mu wax dafa mel ni moom gendarmerie mënatul bu ñu la réew mi moom dafay daggaate. gendarmerie waxee loo xam day andi jiixi jaaxal sama devoir la. ah non léegi je te pose une question et je laisse la parole. mu ne mënoon na xaar. am na fi enquête yu fi duré ay ay weer pourquoi ñu bëgg ko. léegi nga ne du ma xuloo. waaw léegi damay mm. question logique ñun ay journaliste mm. loo wax rek dañu andi question bi nga xamante ne moo ko faram-fàccee. ay borom xel lañ am nañ logique. d'accord <laughs> du ñu ay journaliste mais am nañ logique. li mu wax dafa encore l'opinion c'est nous qui la faisons. non c'est pas grave même plus la peine. loolu que man la bëgg topp si lu mu wax. waaw ah. mu ne gendarmerie mënoon ba ñu lever immunité parlementaire. jéem a mënoon na xaar. j'ai pas dit mënoon na xaar mais attends lui tu es un tissu de contradiction extraordinaire. mais mais il faut non dama ne qu'est-ce qui a fait que gendarmerie enquête fii ci ay dossier ay weer te kenn yéegul hmm. te bii procureur ne ko foccet seen loxo jël ko jox ko juge d'instruction mais jox nañ la élément de réponse yu bëri yoo xamante ne tam suñu xel nañ lii c'est une affaire de viol et après le viol a été ah, ah, criminalisé enquête la ah, dama déedéet déedéet Charles déet bul ngën la Pape Abdoulaye dama fekk bett ma procureur procureur lii c'est pas la parité li muy joxe juge d'instruction c'est pas c'est pas pareil Euh, enquête booy bu leen réyal waaw léegi gendarmerie ñu ngi gendarmerie boobu mu wax ma nan la wax nan la gendarmerie defee une enquête équilibrée contradictoire bu fekkee mu jël une des parties exactement lii c'est le vrai problème non non ci sama xel bu gàtt su ko defoon sax foofu lañ leen di jiñ non oui non lii je suis désolé non non la ma Bamba tamit daf pour une fois ñu laaj ma te maay euh, question la posé der lii je tamit ñu la gendarmerie comme il dit lii li nga baal ma rek lii nit buy wax lii lii doo ma déglu lii lii s'il te plaît lii lii on est d'accord lii mm-hmm. donc bu interpréter samay wax mm-hmm. parce que interprétation ci samay kàddu mooy andi li Charles naroon def nii eh, eh, violon déet gis nga eh, waaw déet waaw xaaral déedéet xaaral attention c'est quand xaaral moo tax ma bëreel Charles Charles voilà et après aussi bu bëreel bon il voulait dire comme d'autres pas non je suis désolé hmm? mots ont leur sens quand tu dis et après attends tu as mais mais foog comprendre s'il j'ai posé une question j'ai posé une question lu xew procureur mhm. ne foccet dossier bi mhm. d'accord jox ko juge d'instruction parce que le le le principal yeneen indice yi feeñ ñoon pourquoi bàyyi wuñu gendarmerie section de recherche continue ci enquête nous on n'a pas de problème avec la section de recherche ñaar sànq mu mhm. génn seen kàddu mhm. ñun dañuy rafetlu liggéeyu force de l'ordre yi mhm. ñëpp xam nañ la gendarmerie gis nga am na yoo xam te ñun duñ ci débat c'est des patrimoines yoo xam ñun ñëpp ko bokk ki nekk pouvoir ki nekk opposition te dañoo war sonn pour ñu dooleel leen je on n'a pas de problème avec les forces de l'ordre mais li ñuy wax tamit mën ñu ñu ko bañal foog ñu nangu ko ay contradiction feeñ na ci enquête bi mais pourquoi on n'a pas laissé la gendarmerie poursuivre on a cité des personnes on des indices. Mm -hmm. mais ces gens-là enquête boobu mënoon na continuer donc man loolu donc laa wax. donc waxuma fi luñ fi réer. wala luñ fi grave désolé enquête man loolu bu ma xam moo wax ñu la may enquête. Euh, euh, enquête euh, mooy. leeral.